waaw ah, jërëjëf euh, mbokki Sénégal jërëjëf euh, mbokki wu Sénégal set yi seen xarit seen soppe Mbaye Ngoné Fall ñëw na ak yéen ci peyu mbër yi dugg nag bi biir Caaroy Géej dugg foo xam ne su waxee làmb rek ñu ne foofu la làmb soqi ko ci Caaroy Géej ñëw ci koo xam ne duma ko présenté ndax moom moo wane boppam ci làmb wane boppam nag ci mbapat dinañ dugg ci mbappat lu baree baree bari wane boppam ci arène bi dinañ ci dugg lu baree baree bari doon champion boo xam ne incontestable def ko ci mbappat yor ko ci siddit yor ko ci deret yor ko ci am sow damay jël témoin comme Papa Diop jéeri Boston jël ko comme jaxate bu pikin jël ko comme naaru bu pikin jël ko comme Idda Fall ngeen laaj leen kan mooy njaati ba Papa Ndiaye njaati moo fi mënoon ci tund wi dàqoon fee bëre gënoon fee am technique nga xam ne day koo xam ne su ma saan ànd ak Mamadi bi su ma saan ànd ak Sele su ma saan ànd ak Ablaye Kebe su ma saan ànd ak Njagandooy su ma saan ànd ak Ndongolaay mbappat mu mu dugg daf koy ub ëlbatiku daaj ñëw taxaw lii ma lay wax soo amee daralu lu la ciy leer da nga koy laaj ki nga xam ne moom mooy Birima Fall don champion incontestable moo tax saa yu ma saan a wax ak mbër rek ba ne ko matoo mille caisse loolu gaal yi moo taxaw ndax dafa am gaal yoo xam ne dañuy def 1000 kees am yu def 1200 kees am yu def 1300 kees foofa la daan waxee ñoom ndax lii la xam lii mooy métier ci lii la gimmee ci lii la yeewoo doon nag ba xale boo xam ne yar ba teggin ba motivation ba jox cër ki xam ne da koo mag waaye am pëstéef ci làmb moom na ni dalal tey mooy ki nga xam ne moom mooy rëg-rëg rëg-rëg nuyul mbokki Sénégal nuyu mbokki internet yi nuyu mbokki Sénégal set nu dugg ci làmb waaw aju billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw buñ sante yàlla julli sonante bi di ñaanal sama papa ak sama tànt yàlla na leen yàlla xaare àjjana si ak mboolem jullit mu fa fekk ak ñi leen fa fekk di ñaanal sama yaay yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba si kanam a kanam ak bépp mboolem jullit di wax senegal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu site internet yëpp waaw di nuyu tamit waa Sénégal mm-hmm. rëg-rëg dugg naa ak yow tey ci làmb maa ngi dalee ci mbapat reg rëg lan moo ko motive ci lan moo ko gën a poussé ci mbapat lu tax su duggee ci mbapat dem sax ba am ay séeréer yoo xam ne doon ko doon siis naan du séeréer te rëg-rëg ku ko xam ba ku xam kooña ku xam Petite Côte bi ku xam ñi nga xam ne doonoo sant càndum ku xam ki nga xam ne moom mooy yaa awa nga xam ne soo ko toppee da ngay dem ba diggante Ndukora gaal dem ay tubaab jalaaw wàcc ci Petite Côte bi nga xam ne càndum càndum yëpp mbokkam nan tey defe naa càndum laa sant rek doy na ak séeréer Reug Reug lan moo la motiver nga gën a viser dugg ci li nga xam ne moom mooy euh, mbapat bëre simple bi lan moo la ci gën a dugal. waaw xam nga ñun moom ay xale nañ euh, nekk xale taxul am ambition. Mm-hmm. ñun dañoo am ambition maanaam tey jii ak sunu ambition lu ñu dugal si mbapat tey jii dañoo doon xale fii nekk di bërantu ay mbapat yu ndaw fii caaroy géej ay ginnaaw raay dem tëngéej bari ñi ci wa ma commencé nag bëre léegi bi ma commencé bëri ma am tolloo quatre mbaa arène arène bi xaw a yeex ma ne ma léegi ma ma ma ne xaaral ma dem euh, dem dimbali sama yaay dem liggéey poor mm. ma dem di liggéey poor léegi benn gaañ gis ma fa ne ma fii doonu sa place ma ne ko aman ah, bëre rek laa bëgg bëri mooy sama métier léegi nag yàlla suñu borom boole ma moom ma dem dëkk bi naan ñoo joor laa njëkk a dal waaw ma dem dal foofu war a bëri ji euh, euh, Jonwaar mais bi ma demee bëri ji Jonwaar ma bëri raw gàddu raw gàddu laa fu njëkk a bëre ma bëree raw gàddu ma fa nekkee léegi bëri raw gàddu làmb ji léegi ma des ma dem final làmb ji tas si diggante Lamp Fall ak benn mbëru ñoojoor joor ñu tas làmb ji léegi ñu jox ma nag bi ma jóge fa dem caalaan léegi nag bi ma demee caalaan dafa amoon sama benn xarit sama benn grand tey ji si sama gaalu papa la woon dem géej ñu naan ko Injara léegi fii la nekkoon si kër gi sama yaay dal na ko defal lu ne ma dem nag dem si moom ma dem ñibbi si moom léegi si loolu tax nag ma yokk toog caalaan ndax kooku la waaw ma nekk caalaan nekk fa pendant ay huit mois yoo xam ne gisuma yaay gisuma papa nekk si àll bi di liggéey di raye sama bopp di ñafe miti woon trop nag mais euh, xam nga loolu lépp xale moo koy def métti woon na trop bu ñu añee tey du ñu ndekki wala bu ñuy ndékkee cere rek na ñuy ndékkee wala ñu dem naan si nagu nag meew yi loolu lañ fa nekkoon di sa sam dégg di wax ñu dem bëre ji ba yàlla def tey jii lii lépp am waaw looloo mu dugal si simple looloo mu dugal te tamit doon dërët mu doon dërëtu mbër waaw mais man basé wu ma si dërëtu mbër dama dem ñafel sama bobu ba am lii tey jii lu ma am waaw mais basé wu kii kii mbër la wala lii mbër la non non lu ma mënti am man maa ko dem faytal sama boobu ba am ka waaw. jërëjëf Reug Reug mi ngi noonu wax na leen li nga xam ne moom moo ko njëkk a dugal ci lutte traditionnelle bi nga xam ne dafa daan jóg di dem di dugg ci séeréer su mën a bëre ay selembele ay ñeneen ak ñeneen di dugg seen biir dafa am ay ndam dafa am ay victoire chemin bi mi ngi noonu waaye nag ba mu duggee ba ci biir doonoo teewee am bis caar yu gépp mer ndax dafa dem bëre ak ku ñuy wax Mamadi Ndiaye te Mamadi njaay soo ko xamee xam Robert Diouf mu jur ko ñu bëre fa rëg-rëg daan ko waaye xale ba mu àndal di séeréer ñu koy seex weccoon na ay kàddu ak kii nga xam ne moom mooy Mamadi Ndiaye lan lañ doon waxante keroog ba indi coow sax. non loolu du coow xam nga tey jii làmb coow ñoo ànd ndax tey jii boo xoolee gànjaay la woon boobu Mamadi xam nga boo dem retraite rek doo da ngay naxari deret léegi nag ma jàpp ko néewal ko doole daan ka léegi nag si bi ma ko daanee après sama booy bi ma taxaw ak sama bi. pour man sa man la bëgg a dóor. cheikh la woon booy bi la bëgg a dóor muy. cheikh cheikh la la la biti loxo te boobu maa ngi ak moom maa ngi taxaw ak moom zéro kilomètre. Mhm. dóoruma dem dóori seex mhm. ma xam ne kii booy bi lay rëbb mhm. après si laa dal si kawam seex dal si kawam wax ak moom waaw mais après daka rétale te ñu baal ko ñu dem ci xooli leneen waaw loolu la rek mais du dara lamb ak coow ñoo ànd business bi moo laaj loolu <laughs> yeah léegi bi nga jógee nag ci Mamadi ban combat moo la gën a motiver ci mbapat non man moom wax dëgg yàlla nag benn combat motivé wu ma si mbapat ambition la rek ma dugg si war see def sama carrière waaw te def naa ka si waaw def naa ko si bu mat sëkk looloo ma si dugal mais benn combat météwul si man benn combat liiwu ma ka mais ba léegi yaa ngi bëre mbappat waaw ba léegi maa ngi si mais xam nga tey jii bàyyiwuma simple mooy li may wax rek yeneen média yi di xalab simple ndax ku ma xam simple moo tax nga xam ma naaw yàlla waaw te simple da am lu ma si def sama lu ma la expliqué kon du ma ko xalab bàyyiwuma simple ba léegi maa ngi si simple mais ma instant bi nañuy xool lu defar suñu yoon ci waa ba yàlla suñu borom may ñu lu ñu bëgg si làmb ji waaw léegi lan la simple mën a indil mbër simple simple ah lu mën bu indil mbër bëri na le maanaam compétition bi rek doy na sëkk ah ak nit ñi xam na si tey jii lu mu am làmb simple moo ma ka may. comme mooy lu may simple ak compétition bi yëpp lépp moo ma ko may ndax tey jii ah, comme tey jii bu ne boo boo la ngaa dugg université di nga dem classe boo xam ne tey jii bala nga àgg université di nga dem première dem deuxième dem troisième dem quatrième dem cinquième simple noonu la mel simple da dem pour jàng ba pare jàng si ba pare xam li nga li ngay def waaw loolu la quoi loolu la rek. mbër mu bëree mbappat ak mbër mu bëriwul mbappat léegi soo leen nee jàkk ñu taxaw ñoom ñaar defe naa dina am loo xam ne dina feeñ ci ñoom ñaar. waa dina feeñ ndax ki ëpp kii bëre simple moo ëpp avantage ndax kooku su ay vidéo ngi bëre simple mu ngi bëre simple te tey jii moom mooy ëpp avantage ndax condition ba dina fa ne bëre ba dina fa ne ah te mbërëm simple bi moo koy gën a nekk chaque jour moo koy gën a miin géew bi tañ boole si waaw loolu avantage si simple. Mm-hmm. mu ngi noonu. waaw jërëjëf léegi foofu dugg nañ fi mu wax leen atu yi nga xam ne moo am ci simple ak yi nga xam ne moo ñàkk am ci simple ak mbër mi koy bëri ni muy mel ak lan mooy avantage yu simple léegi nag Reug Reug jógee na foofu léegi nag dugg na ci arène léegi Reug Reug bi nga duggee ci arène nag léegi nag euh, sa premier combat ci arène. waaw sama premier combat maa ngi ko bare fin 2012. waaw man ak euh, bu ma juumul sëñ Modou moo ko tëgg. Mm-hmm. waaw man ak Alioune Junior. Mm-hmm. bi ma paree si Alioune Seye junior 2012 bi si bi am ah, fin 2012 bi am naa si quatre combats quatre combats yoo xam ne bu si ne rawantewul ak rawantul ak une semaine <laughs> xam nga suñ Mourinho noonu lay mel noonu lay tëggee <laughs> bu si nekk rawantul ak une semaine. fekk na ragaloo ndax wóolu nga sa bopp ndax compétition yi. waaw boobu waaw boobu macha ñu si bopp ndax comme ñu ngi compétir every day xam nga lu ma expliqué boobu ñu nekk si léegi ñu bëreeg euh, Alioune Seye junior daan ka mm-hmm. jóge fa bëreeg Boy Diouf. Mm-hmm. après ñu jógee fa bëre booy ñàgg. Mhm. après si nañ de am grand combat Clinton. Ah. noonu lañ def dugg si di commencé di dem ba waaw yàlla suñu borom def. loolu lépp ci 2012 bi la. lépp loolu lépp si 2012 bi. bon léegi lan. si première naa si quatre combats arène. waaw mais xam nga sëñ Modou Niang ñu ngi koy nuyu au passage. Mhm. ku jàppale mbëri la. moo tax tey jii moo tax tey jii boo xoolee boo yëpp. Mhm. moom moo leen dugal si làmb. ndax boo xoolee every day day tëgg lamb chaque jour day tëgg lamb man doo xoolee samay combat <laughs> une semaine la andi damay bëre dimanche dimanche bee di ñëw ma ñëw bëre waat <laughs> waaw xam nga loolu loolu lépp mais maanaam day dimbali làmb day dimbali xale yi jeunesse bi xam nga jeunesse bi tey jii Sénégal yaa ma gën a xam nu muy demee mm-hmm. ndax tey jii koo gis mu ne daa bëgg a teral ay waajuram mm-hmm. te làmb ji dematul noonu mm-hmm. waa sëñ Modou ñaa ñu ngi koy ñaan tamit mu gën a jàppale booy yi waaw lu muy def baax na trop. waaw léegi comme euh, bu njëkk ba ñu daan bëree nga xam ne ay Fallaye Balde ay ñoom Papa Kane ay ñoom Mbaye Guèye la Tigre de Fass maam góor gi Ndiaye ñoom Fodé Doussouba ñoom jongu nga xam ne ñoom Gamou Guèye seen combat daawul rawante ay un mois dem na ba ci Baye Modou Kane gis nga ni mu daan bëree da daan dem Yoff di bëree di dem Pout di bëre di dem Tëngéej di bëree ñu jóge fa Baye Séni mbay Ndiaye ndaanaan la woon Arène Sa Mbaye Sall lu nekk def na ko fi Baye Modou Dieng lu nekk def na fi góor gi Babacar Guèye moom it noonu la meloon nga ëlbati ku dugg ci Baye Thérèse Ndiir moom it noonu la meloon ndax moo fi daan Cheikh ba saw jël bu rëy fekk mu am 9 ans ginnaawam laalu suuf mu jël ko paqueté ko di ko ba ci kaw daal dóor suuf léegi lan ngay wax ci maanaam combat yi nga xam ne day jegewantoo ak combat yi soriwantoo lan mooy perte bi ak lan mooy avantage bi. non avantage bi mooy tey jii comme tey jii boo amee combat boo xam ne dafa jege. Mhm. nga bëre ka amaat combat boo xam ne dafa jege loolu compétition la day tax. géew ba doo xam da nga koy da nga koy miin xam nga tey jii combat arène boo ko amee tey jii boo xoolee dina dem trois mois wala quatre mois ba un ngay préparer combat kon loolu doonatul combat combat lu mu gën lu mu lu mu gën a gaaw mu gën a jege nga gën a am compétition nga gën se am li nga bëgg mais boo xoolee tey jii mbëri léegi dañuy bëre benn combat année bi benn combat nañuy bëre léegi promoteurs yi ñoo amatul maanaam yenn moyens yi xam nga lu ma expliqué affaire bi nañ ko wax. yenn promoteurs yi ñoo amul ay moyens. te tamit euh, sunu papa Macky Sall dañ koy wax mu ñëw jàpp si làmb ji ndax làmb ji laaj na jàppale. ndax boo xoolee tey ji promoteurs yi amuñu lu tëgg sponsor yi dara amu fi. moo tax làmb yi làmb yi boo xoolee day day yàgg ku si mel ni ñoom boo xoolee boo